suñu priorité mooy en fait def tout ba inflation bañ a am loolu le ministère du commerce le gouvernement bi ci loolu pour que stock yi stock yi doy am nan ay stock ci si euh, ça dépend ci denrées mais aussi bateau yaa ngi ñëw parce que fermeture frontière frontières concerne wul cargo concerne wul fret maritime donc marchandise yëpp de l'union lu leen di xaw a influencer rek mooy fu ñuy jógee peut-être ñooñu seen économie ak mesure de confinement yi ñu fa jëli wante loolu c'est très c'est très négligeable pour l'instant donc loolu ñun amul ci benn tiitaange donc prix yi amul nu mu mën a yokkee parce que leneen changé wul donc loolu mooy sunu priorité euh, euh, ménage yi nga xam ne nag programme sociaux yi nga xam ne nag état bi amoon na ko aussi yooyu ay programme prioritaire la yooyu kenn du ko ken xalaatul sax wàññi ko suñ ko yokkul kenn di ko wàññi mooy ay bour sécurité familiale ay yenn programme d'urgence yi nga xam ne ñooy affecté directement population ak ménage yi nga xam ne ñoo gën a néew doole programme yooyu en fait ci moment yii sax lan leen war a gën a dëgëral lan leen war a gën a gën di yokk ndax population bi bañ a yëg coono bi euh, bañ a yëg coono